ñu ko wax nii rek ne làmb ñi ngi ko nànk ci région yi ni ko waa Dakar nekk di xalaat ñoom noonu la ñuy xalaate ñu xalaat ñu def séminaire bii nga xam ne am nañ ci yaakaar lool te jàpp nañu rek dañ indi yokkute ci làmb ji dina jëmale làmb Sénégal kanam ndax nag lii mooy li bëgg mooy que en fait dafa am échéance buy ñëw muy li ñuy Jeux olympiques de la jeunesse borom 2026 Sénégal war ko organiser day baax ñu nekk ci région yi ci wàllu làmb bi ñu xalaat naka lañ cay demee ndaxte ñaari di fi ñoo nekk di fi participation ak di fi organisation comme ñun ñëpp ay Sénégal lañ war a ci war a taxaw ñoom inscrire nañ ci ñaari am na yaakaar daal ne ñaari fan yi ciy def dina mu solo lool ci làmb yi te su paree document bi ñuy joxe buñ ko validé danañ fexe presse bi jot ci lu ci mën